nga ba léegi. huit moom kër pare gu ma. ah. préparation na temps ah gisoo li ma ñaawee nii. faaw ma defar. ay def yi tamit seen kër la. est-ce que saa yow. waaw. waaw xaaral ma kon xaaral ma. ok dafa vite fait waaye. le may def parcours bi. ñoom ban jànq sax la ñuy bu fini bu acquise tout près. tout près. Non, continuez, jege na ma. lu la ma quoi. donc ba sa c'est mon, seigneur. na si Momo ak Sophie. ne <laughs> na bi baax kenn. amiin de <laughs> réputation bu am. bu C'est kër bu du ci mais comme ni ma c'est gis si baax na baax na nuyu comment tu te hmm. sama bopp dara. bu tax. lii rek laa la doon ñaanal. Mhm. yàlla baax na soo demee nag na góor góorlu nga muñ sa goro bii na nekk sa yaay sa baayu jëkkër na nekk sa xarit mhm. nga di leen toppatoo mag buur la àdduna amul benn solo.

noo ma gisee. ndax Ndiol xaar fi mu déglu quatre vingt. caa. maa wóolu ko sa bopp. ah bañ a kaay tamit nag. ah yow nga enseigné ma ba pare nee ma ndax na lañu rek. bàyyi ma yow danga am jom nag man bu ma demee nga dem topp sama gannaaw. ku ñëw mu daal jotagul rek àjjuma xam ne su demee dama koy fekk ji man toog moom di fekk muy sëy léegi àjjuma rek la dara yàggul. yàlla baax na. incha allah li ma lay digal. Mhm. soo demee na nga sëy te yàlla tax yaa tànn sa jëkkër ji. amul doole te bari nga bëgg-bëgg yaa ngi may dégg. chichi iya, nga nekke won fi ak man bu ko fa yobbu ya ngi may dégg ah dia dama la xam nga bëri bëgg-bëgg de wa wa wa déet ya. dama la xam rek ndax man fi amul lo ma daawul def dama daan jaaxle sa boo bëggee dara fa ma taxaw sa jëkkër nak amul doole nang ko muñal jëkkër sang la hmm. nga fonku yaayam hmm. bayam ga nuru na mako nakari naqari way xol bi dara nekku ci nak pourtant waaye boo demee dee ko neexal di ko naxtaan di ko fiiriiral ak di ko toppatoo rek wutal bànnee xam ndax mënoo bëgg seen doom ba pare di leen di leen di leen def ni ma doon def nag dama bëri kees nag du bàyyi wax yi may ah dama la duma ko bàyyi dama lay yëpp rek doom ah doom dama lay yëpp rek yëpp moom du doy defal lu baax du doy de ci sëy lu mën defal pour rek sa sëy neex yaakaar naa sa bopp sa jëkkër nag mënoo koo bëgg bañ ay waajuram ana sa xarit ñu ngi fee servir nañ leen ñoom ci ak ñoom kii neem yeeg yooyu jox nañ leen ana ba ñu ci salle bi toog ñu ngi la nga fi tok fa ma ñew defante ak ñoom lu baax du ci ñak lolu ci saan la ah waaw fa nga bégal leen du ci ñak waye nak duma def luma mënul nak waaw dëgg yalla lu mënul moom. dama ko def jamono neex ci jaamu yàlla ah, bu ñu indee lu ñu indi rek ma njukkal leen. yàlla baax hmm, bu ñu ko fóonee cent mille ma teg ci moom fi mu ne nattu la. maman léegi mën ngay ah, ah ñoom ñooy ñëw pour commerce. dañuy ñëw indi seen cent mille. sama jëkkër ji yow. mu ah, ngi fee def ba mi na mën ko loolu ay ay ay

Mudah, daawal mu Mudah jaaxal moo danga daan ñëw muy gaf di ree mais tey daal dafa kalmoon man ko mun demee nii daa kalmoon mer de dëggantaan ba mu lu muy mer jabar yoonu yàllaam la di papaam balaa moo nelaw da ko cee takkaloon Mudah ma yaa ngi door wax moom mii moo ñëw rek moo daal danga daan ñëw mu naan rek mais <laughs> tey moom dafa caractère moom ne rek yéeyéem bee lay sëyal waaye cosaan gi moom ya ca kaw kaw la hmm loolu de la waaye moor de lam ah ah foog ma jox ko di rafetlu bés bi ndax kontaan nan xol sedd na guy ginnaaw biñ ko duggee si bisimilahi rahmaani rahim ah, génn si rabbil alamin ah, na ma torop ndax nga mettelul na bës bi waaye yàlla def na alhamdulilah lépp yomb na kon nag kontaan nañ sëñ jogo tey nag suma wax du ah ah, ah sóora ma yow itam ah. sóora waaye li ngay def waay waaw mais bisu bisu sóora sóora dama ca pass dama ca pass waay itam ayo, ay ba mi kum yàq tëggalal gone ay ko la bàyyi nga tëggal say baay yow itam dama ca pass ba bismillah salaamaaleykum mbooloo aleykum salaam imam ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di sant tim señ mor mi nga xamantene man nawon na ko mais dama ko gëna naw lutax ndax señ mor dafa def jëfi kilifa uh-huh. ndax kilifa non lay doxale uh-huh. bu gisee ñaari xale yuy ànd uh-huh. li war moy mu may leen deug la man nak ma sama kilifa deug la bëgg ko jox kaddu gi rek mu waxtaan ak mbolo mi ndax moy sama kilifa deug la sëñ Ndiaye. salaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum salaam xanaa dellu di santaat yàlla rek. dama bi yow xam nga ni yow boo amee bis bu toll nii tey nga ñëw fekk di say bàjjen di séeri momo kon bu bàjjen ñu defee transfert déplacement. cité ak gis nag yow ak momo ngeen dëkk fi mu lool dogal ngeen si cité bi. kon bu ngeen déggee si si tey addis bi suufi séeri moo moo doon seetaan lu fi ñaaw di wax ne na xelam dal ndax lépp lu mu ci yaakaar ci lu bax insha allah rabbi lépp lu ci man ci yor xale bi dañu ko def ndax wax deug yàlla as gor la te ay gor la ko séqal te mayna ay gor kon kay xana ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin rek sëy bi yàlla ci yàlla def barke ci barke Seydina muhammad di gërëm mo di ko sant waaw gis leneen leneen a ngi Cité Akis yàññ na neex na te it am na sécurité man xawma kan mais maa ngi biir Cité Akis maa ngi woo ñëpp nag ñu ñëw fii ndax lépp fii la.